dama xam ne am jabar amoo ci moom du la beauté des yeux ngay osé naan nañ la ko indilaatal bref euh, ginnaaw nag kër gi moomaan nañ ko delloo ma sama caabi d'accord. c'est que yow grand tu n'es pas sportif. du football. ah mais en kay lépp loo gis match la match bi tas na. je suis te xam nga ne man ragaluma la guerre des milliards la ñëwal attaqué ma man jàpp kër jàmbur teg ci sa loxo ëpp leen doole. pour lan sa nafsu bakkan ndax kayit gi bi mu tegoo sama loxo ba tey awma la conscience tranquille parce que xam naa ni nekkoo leen ci jàmm te bu dee man rek duma leen xaj seen jàmm sama digg ginnaaw géej sama ndigg li yépp a yàqu ak wet gi fii laa toog di onk gisuma kenn ndey xujja jum moo ñëw fekk ma ci ordonnance bi moom ma ko jëndal